naar bu ñëw ci sëñ Fall ni ko jaamu yàlla mënta ñàkk sëñ Tuubaa sëñ Fall ni ko waaw ku bëgg dem àjjana da nga ko def mu ne ko liggéey mënta ñàkk mu ne ko ku bëgg a tedd fii ci àdduna da ko def mu ne ko xam-xam mënta ñàkk mu ne ko ku bëgg a dañu réer da nga ko sàkku daa ko waaye du de mu ne ko waaw kon li tax du yët nag laa bëgg a xam mu ne ko ak taalibe bi mooy li am solo mu ne ko kon ak taalibe bi laa bëgg a xam bu génne ñett yooyu mooy nag mu ne ko ak taalibe bi mooy ab yar ne ko boo jàngoon ba wan nu lef te amoo ab yar <laughs> des na futti caw la sëñ Fallou àgg na ci bu fekkee dëgg li ci yow li ne ci yow bu la ñoree dëgg-dëgg ñëw jàkkaarloog sëñ Fallou te aajo faju na jërul sa nga naa ko bëgg naa lii def naa lii def naa lii sëriñ Fallou boo nee ñëw ci la xam ne leen tax a jóg sëriñ Fallou boo dikkeen képp ni tekk képp jàpp na jàpp sëñ Tuubaa bu baax jàpp nañ ci moom na jàpp ci sëñ bu baax kii ngeen am kenn amu kenn amu kenn amu ko. sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn ko. da ngay dem sant bu baax. boo xasee yëg ci sa xol ne sëñ Fallou ngi ci yëngule yëgal na bokk nga ca gaañu baax yi ak yaare ñeen tànn wa man te guur de grand léegi doonatoo ku ndaw maanaam maanaam sëñ Fallou bu nekkee sa xol. sama baay nee na daa siyaare barabu sëñ Tuubaa génn. fekk mbolo mi fess del seigne fallu jël baaraam jaarab xeb feug ci buntu bi da way borom barak bi liggey bi son teddi fi di noppalu ngeen koy sonal rek daane bis ni ki tay bu ko kenn waxati aajo aaji ju op talibi am na ma ko wax ma fajal ko ko mu del andat seigne fallu way ku yàlla baal war na waaju aw dem soxal iñaanul mbaga doon kuréere way ku yàlla ba baaxal warna wa waaju am xel way si xabru karim